il faut qu'on réconcilie il faut qu'on rassure gis nga réew mi metti na diis na nit ñi nit ñi nit ñi jub jubootuñu ci lu bari nan la ñuy fexe ba takkaat fasaat bu mu xolu réew mi ak askan wi mooy bi jiitu rassembler réconcilier rassurer il faut recoudre la nation mbirum waaso mbisum xeet mbisum religion yi nga xam ni mi ngi commencé di émerger day perle rek mais dojuwul loolu wala ñu war jëkk rek il faut que ñu daal ñun loolu lañu gëm parce que dañu gëm ni nation su amul état du am parce que état day wéeru ci nation le commun vouloir de vie commune bi caractériser woon suñu réew il faut que ñu defaraat ci damay wax toujours ni bis bu ñu toogee ba waa Casamance waxatuñu ana Sénégal on aura franchi un grand pas. est-ce naa jàpp ne le principe de la réunification euh, de la nation et du renforcement euh, de la cohésion nationale moom mooy nekk l'axe majeur. mooy puj bu njëkk bi mooy puj bu njëkk bi. xam nga Ablaye waat bi mu fi bi mu fi jógee Macky Sall ñëw dañ ne Ablaye Wade dafa yàq jikko yi ñu ne Ablaye Wade dafa désacraliser institution yi Macky Sall ñëw indi son slogan le la la patrie avant le le, le parti ñu à la à la fin euh, du magistère de Macky ñu ne Macky Sall ci wàllu réalisation matérielle daf na lu bari waaye dafa lajj ci gouvernance immatérielle. est yow da jël non boobu mooy bi jiitu nation bi mooy bi jiitu gouvernance bi. en mettant la nation au centre. nation bi mooy premier parce que mooy pucc gi gis nga suñu réconcilier wul nit ñi réforme état bi la war day naax saay parce que boobu deuxième. chantier parce qu'il faut réformer l'état. absolument. les réformes n'ont pas été. non été non aujourd'hui mais ban réforme un état impartial. il nous faut un état citoyen il nous faut un état boo xam ni farul dafa nekkal ñëpp aujourd'hui est-ce que état parti socialiste euh, état impartial la oui on avait un état impartial xam nga parti socialiste un état impartial boo xam ne bu le principal opposant dafay élection bu guddi jotee ñu jàpp ko yóbbu ko tëj ko non kooku du du ça n'a avec état impartial ah mais ce sont des décideurs de l'état ñoom ñoo ŋànk ñoom ñoo ŋànk justice bi oui mais ça n'avait rien à voir c'est pas la même chose su ma la waxee état en partial d'abord ñiy servir état yi xam nga fii ñu toll politique bi dafa mëdd lépp dafa mëdd lépp il faut que par exemple soo bëggee état bi doon un état impartial et neutre toutes les incompatibilités yi ñu defoon te waa Wade dindi ko ñu delloosi ko. par exemple magistrat nekk homme politique genre yooyu. du ak yëpp rek que kiy servir état bi doon rek un fonctionnaire un administratif au service de l'état nga def ko à l'abri de toutes sorte de pression et de manipulation. fonctionnaire yi dootuñu duñu duñu politiser la fonction publique. c'est pas la fon c'est pas fonctionnaire yi c'est des responsabilité un secrétaire général de ministère qui doit assurer la pérennité de l'administration warul nekk politique. non warul am fonction politique c'est différent. warul am fonction politique moom ku mu neex nga am loo gëm politique. waa mais warul am warul warul nekk. un moo tax man ni la non incompatibilité de fonction. li ma est-ce que xam nga li mu la c'est-à-dire un secrétaire général de ministère mënul doon maire. un secrétaire général de ministre doon député un secrétaire de ministère mënul doon euh, élu un directeur général am na yenn yoo xam ni waroo yenn fonction un magistrat warul doon maire. non en tout cas on avait mis des incompatibilités parce que li ñu bëggul mooy que fonction bi mu yor ci état influer ci la muy def ci politique ba parce que dafa far soo faree dootoo àtte mais surtout nga jël directeur général wala ku yor fonction de de régie de recette et autres. nga def ko maire. nga def ko maire wala nga def ko politicien. ba pare nga ne ko boo gañool ma dàq la. waaw c'est ça le problème il faut revenir à des fondamentaux qui fassent que ñi nga xam ni dañuy servir état dañ fiy nekkal état bi rek ñi bëgg politique politique yi mu am ay fonctions yoo xam ne on les préserve. aujourd'hui tu vois ministère des finance jëlal ministère des finances. fortement politisé jëlal direction yi jëlal yëpp ñëpp ñu ngi ci politique bi et après on est surpris que mu am yenn dérapage parce que politique ñi bari dañ ko jëlee léegi ni da ngay joxe xaalis boo liggéeyul noo koy foo koy jële donc il faut revenir en un état impartial et moo tax foofu du rekk ci fonctionnaire yi da ngay door ci président de la République bi le président de la République ne doit plus être responsable de parti su xasee ba falu président donc da ngay ci conclusion assise nationale boobu. loolu laa bëggoon nga wax dama la bëgg wax ni suñu base programme suñu amus programme c'est les conclusions des assises. parce que foofu laa la bi ma waxee ñaar yooyu xamoon naan fa ngay daanu si li assises yi wax assises yi c'est un fort moment boo xam ni askan wi yëpp dajaloo waxtaane suñu réew d'accord ci nan la war doxe d'accord ci nan lañ ko war yore xam lim la donc loolu mooy tax suñu ko defee et scénario bi président Macky laajoon 2016 conclusion yi mu defoon rek rek leen na loolu suñu pucc suñu am ou programme c'est des